combat lu loo indi fii. tere tere da ko yëngal. tere da ko indi. mais jël lan namm na la. bilaay maa leen raw moo ne muñal bilaay maa leen raw père. bilaay walaay. père ñoo war a jël. père gars yi la gars yi ñoo war a jël. Ah, xam naa loolu laay mujjee def loolu laay mujjee def. non sax man la war a bëreel man la war a bëreel sax man la war a bëreel. man la war a bëreel. mais man dafa am bu ma teg sama bët. damaa war a daan si ndaanaan yi. man defuma dara ci làmb barki alxuraanu karim si li ma war a def ci làmb loolu nag dooy wax ay la fii. bu nga waxee Alioune Seye 2. foofu sama baaxoon foofu ma bëree moom moo ma jàngal bëree. Alioune Seye 2 moo ma la guerre numéro 2. ci kaw rek rek Sa Thiès laay xaar. billaay wallaay moom laay xaar. boca santa. Nem quero ir à boca santa da boca. Nem continuo lá que não estou no meu lado. Oh, não, não, não, não, não. Gaja lá na kii sama doomu ndey la sama mbokk la kii sama deret la ponkal yi kenn daa faale benn ponkal ñu ne si kaw waaw ragalul loolu kaw nga di naan comme ñu fi ne nanguñ ma jël bobu lay xaar bobu moy sama combat ñooñu ñooy sama génération sama morom di làmb Sa Thiès rek foofu la may fekk suñu dëkk. ñun dañuy am lambu cosaan foofu. fa la may fekk incha allah la rek comme combat ah, man tuus laa bëgg a seetaan